mais amoo yaakaar ku mel ni Mamboy ñu mel ni Aly Ngouille ñi génnoon ci pôlu Benno bi ñu retourné ci pôlu Benno bi après la la la de la euh, de la liste des. ku ci amul parrainage moom di nga dellu fi nga jóge woon. di dellu fi nga jóge gisuma par exemple kenn ku bon bokk yaakaar amul parrainage dem delluwaat ci opposition ah je moom la xam doo xam aussi. et ñii di pronostiquer ñii di euh, wax naan Mamboy mën na nekk réceptacle. Euh, militant wu Pastef yi. Hmm, en tout cas nag ngi def lu mu mën moom nee na Sonko xaritam la. waaw mu hmm, ngi def lu mu mën de moom pour am ci affaire yi. mais kañ la wax ni Sonko xarit léegi la ko wax ni. Euh, oui mais Mame Boye il a toujours assumé ses ses relations. à l'époque mos na taxaw ci télé ni Sonko xaritam. oui def na émission déclic. Euh, il a parlé de ses relations non non non defal naa ah, ah, la. ñu wax. est-ce que ah. en 2021 Mame Boye taxaw na fii ni Sonko xaritam. d'accord mais. defal ndànk euh, ba bi muy leer ni Macky Sall day nekk candidat wala déet est-ce que Mame Boye mën sa taxaw di Sonko xaritam. si émission déclic bi c'était avant l'annonce de du de de, de ah, mais boobu nguur gi ñaata weer moo ci des. tu penses que ça a quelque chose à. ah non soxna si quand même bu ñu naxante. Sonko moom kuy assumer amitié ak moom léegi nga koy assume bi affaire yu tàngee. ñu nekk ci gat sa gat sa képp ku taxawoon ne ko sama xarit nga sëñ bi Macky saal boo xëyee suba gis say bagages ak say valise ak say yëpp ci mbedd bi attends c'était une guerre de seen question de vie et de mort ñu nekk ci guerre boo xam ne nii c'est c'est c'est une guerre à sang yow nga ne da ngay bokk fii bokk fii loolu fu mu am mais li xewoon fii guerre dee la nit ñi di dee ñuy taal di taal di ki nit ñi di risquer seen vie ak seen avenir ñu ñuy taal seen kër yi di lakk seen oto yi di dóor seen doom yi di rey seen waaye non attends mais affaire bi du fo du ree du kaf du ree époque boobu képp ku taxawoon ni xaritu Sonko bu fekkee ni ci non non attends attends au contraire nit ñi kay dañ doon jox gage ni ñoom mais am na benn moment moo xam ne sax boo saagawul Sonko kenn du la nommé fii dans ce pays attends donc faut arrêter faut arrêter kenn sañul woon def loolu ci camp Macky la waa ji ne la danga may rey wala mën a ma rey la ñëpp dégg ko